mu soxna Baali mu soxna May mu xaadima rasool Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma xaadim borom nit ñi mamara sali sin ba balay si bur si Mbàkke maaram Cheikh Anta xam nga ku ñu bëgg jox kàddu gi ah jàmbaar ji nga xam ni député assemblée nationale yàgg na président Macky Sall Cheikh moom dañu ñuy jox kàddu gi waaw so euh, Cheikh Abdou balaa wax soxna Asso nga toog Serigne Bass dafa jëloon jëmmam boole koog soxna Baali bàjjanam soxna asu sa jigéen baa nga nee toog ànd ak soxna may moom Cheikh Mouhamadul Mourtada soxna Fatima si moom Serigne Pape Malick si moom Serigne Babacar si mi ngi ñëw na ànd ak délégation boole kook andi délégation euh, euh, andi ay teranga yu bari ñu koy sant di ko gërëm di sant Pape Sarr mi ma boole loon di ci taxawaayam ak pas-pasam engagement am ci kër gi soxna Ndeye Dervis bu Ousmane Masseck Ndiaye ñu ñu déglu monsieur le ministre colloque yi mu doon def ci international yëpp nee naa ko ñaari nit nga fa sagal sagal nga fa président Macky sàll réew mi Sénégal sagal fa sëñ Touba kon monsieur le ministre Cheikh Abdou vous avez la parole. sagal na fay l'islam bi yëpp soxna Binta Ba ak soxna maam Maram Mbacké di waa kër sëñ Saliou sëñ Xaadimaw Ba daayira maam Jaara indi nañ seen siyaare. dama bëgg na ñëpp dal ñu àndandoo déglu sëriñ bi ndax kii ni mu demee ak Cheikh Mamadou Bachir ñëpp xam na ko biig soxna assu fii la guddee kon na ko ñëpp déglu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Bas ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la xamal ne li nga def sax baax rek la yàgg nga koo def waaye sama diggante ak yow amatul lu ñuy fësal ku ne xam na nekkuma fi woon mais def naa sept mille cinq cent kilomètres nga fekk ci bis bi trois heures du matin barki démb ba bicc ci vingt deux heures daa soog a dugg sama kër waaye alhamdulilah bi ma ñëwee sëriñ bi rëccuuma lu ma doon dikk ci bis bi ndax li ma fekk jataay bi mu di sang si mu fekk mbooleem ñi ñànk diina ji ñépp tey ci daje nga ci tant bii moo tax sama nuyoo bu njëkk dama koy teg ci loxoob Serigne Sidi Ahmed Sy ak waa kër Cheikh Ibrahima si fi nekk ak mboolem kër diine yi fi nekk yépp ndax bu ngeen ndikkee ci kër Serigne Touba jataay bi yéen ko moom bis bi seen bis la te lii sëriñ Bass def loolu day tegtale ne mi ngi teg teg tànkam foo ko maamam tegoon su ma jógee ci loolu maa ngi nuyu di ziar mboolem njabootu Serigne Touba gi fi nekk gépp mu di sëriñ mahamadan sëriñ cheikh ummi sëriñ moustapha alaji baara sëriñ cheikh aliou sëriñ sirisi di nuyu sëriñ cheikh aziz ak mbooleem njabootu sëriñ baara gépp ak seeni doom ak seeni rak bàyyuma kenn di beral ab nuyoo kii di sëriñ moustapha lakaram ak mbooleem njabootu maam cheikh anta ak mbooleem njabootu suñ Afrique gépp ndax bis bi ñoom lañ ko jagleel loolu sëñ Bas defati loo xam ne lu rëy la ndax fàttali diggante mag ñu baax ñooñu ak Serigne Touba ak rattaxal seen diggante moo tax ma def lii kon Serigne Bas au ma dara lu may wax jataay bi ak jàngale la ku ñëw toog rek loo bëgg a xam da nga ko fi xamee ndax li nga boole saab ñu boole ko Sénégal kon maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm. di fetliwaat sama couleur ak yow ndax dafa am lu nu yàlla boole dañuy assumer suñuy relation di assumer suñu xarit loolu nag moo tax sëriñ bi yàlla na la yàlla lafal cet ba loo man ren bu dee na nga mën lu góob wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërëjëf Sidi sëriñ Sidi Mbakke Cheikh Abdoul Khadir sama sëriñ ah Cheikh Cheikh Sidi Mbakke bu Cheikh Abdoul Khadir dafa dugg si léegi ne di waajuram di xaritam sëriñ maam Alpha si bu ala jàpp ne seex maam Alpha yéen da ngeen a xër rek waaye sëñ Pape Cissé mais di sunu doomu bàjjen doon na sëkk ci jataay bi bu sëriñ Sidi Ahmed ñëwee nga ñëw Tiwaawan ñëw nañu jërëjëf léegi nag seex Euh, euh, dafa am ñaari baat yu mu ñaan ci sa ci tey doo teñ tudde ko sa baay waaw dana ñëw léegi nag ñu jox kàddu gi sëñ Pap si Cheikh xam nga kii dugg si lii mu wax léegi ci maam Alpha ak Sidou Mamet Pape Malick mooy Sénégal Pape Malick Serigne Babacar si Yaaji Malick waaye Pape Malick